asalaamaaleykum mbokk auditeurs rajo Oxygène ñu ngi leen di nuyu comme niñ koy defee rek saa su nekk dellu siwaat nañu ak yéen ci seen émission diisoo ngir aaru euh, di projet bu Africa cek ànd ak Théâtre for Change lépp ci jàppandalu Google News Initiative di fàttali rek ne fii rek la ci 103 point 4 rajo Oxygène altine bu jot ci bu juróom benn waxtu ci ngoon jotee jàpp juróom-ñaari waxtu ci ngoon euh, te émission bi ngeen mën koo dégluwaat dimanche bu fukki waxtu ak benn jotee ci suba jàpp midi tey ji nag li ñu namm waxtaanee moo di euh, Covid ak euh, matt matt yoo ngir amal bile émission nag ñu fiy dalal madame Mati Sarr nekk comédienne dëkk fële ci yaraax bokk sax ci troupe kaddu yaraax waaye itam nekk bàjjenu gox di jàppale askan wi lépp lu jëm eh, ci sensibilisation bi jëm ci eh, mbas mi di fàttale itam ne laaju semaine bi moo di ana lan dañu mën a wax ñi nga xamante ne dañu jàpp ne matt matt yoo mën naa joxe lii di virusu covid bi ci bile laaj yu semaine nag ngeen mën cee tontu euh, ci réseau sociaux yu Africa Check wala sax ngeen bàyyi ci seen xalaat ci fàttali épisode tey bi nekk quinzième euh, épisode bi di wax ci Covid ak matt matt yoo xanaa rek ne tuut ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñoo di suñu comédien ñu joué leen bile épisode di épisode quinze mais naka la gayaan baa muy kuul waa mais namu naa la de si loo ne waaw sant yàlla naka coono yi waaw mais yaa si jàmm baa ànd nga ak sawarte de foo jëm nii waaw mais gis nga de kër biige laa jëm nii kër biige oui xam nga biige comme maag moom ñoo ñooy liggéey si sensibilisation dama jot léegi xibaar boo xamante ne nii dañu wax ne matt matt yoo day joxe corona yoo bi su la mattee su mattee keneen kooku day am corona ma ne nag lii nag du ma toog quoi damay jóg léegi dem wax ko gis sa waxu dof yi ni génne ko sa bopp lan mooy ay matt matt matt day joxe ay corona waaye booy corona amul waaye mënoo leen noppal seen bopp nag yéen ngir yàlla. waaw mais may booy yow la moo tax yow doo dégg yow luñ la wax rek nga teggi teg fële damay kër bii nga laa jëm pour ñu sensibiliser nit ñi parce que gis nga ne yoo nag képp koo xam ne daf la matt kooku bu mattee keneen day amee corona te comme nag wax nañ ne day joxe corona man damay dem léegi. waxu nit ngay wax nii nii yow yaay matt nga naan yoo bi su la nga yow nga dem matt keneen. waxuma dama ne bi su mattee ko am corona. su mataatee keneen kooku day am corona parce que daf koy wàll man loolu laa la wax day dégg wax. waxu lan nga may wax ni nii. mais Modou xanaa déggoo dama ne corona bii ñu wax ne yoo daf koy joxe mooy que ne su fekkee ne dafa la matt yow mi am corona su mattee keneen daf koy wàll kooku noonu. léegi xam nga lan la man seen waxu dof yooyu noonu man mi may bëgg a soof mais jarul ngay dem ci biige de nañ dem salle de répétition. léegi am nga fa benn candidat boo ko war a xibaar nañ dem. maa wax ba mu dégg mi ngi foofu noonu boo demee. nga expliqué ko moom tamit. di nga maa ko koy wax. waaw dañ dem waaw dañ dem. ayca. tey kon nag yaa jiitu salle de répétition quoi. eh Modou naka mu amee naka mu. ça va lépp jàmm. tey nag dama am bu mu andil ko dugg. information waaw. xam nga moom temps yëpp comme ñun ñooy waxtaan pour sensibiliser nit ñi si corona léegi nag jot naa xibaar ne matta matta yoo day joxe corona ndax su la mattee yow mi am corona su mattee keneen def kay wàll. matt matt yoo buy joxe corona pap waaw ah, man de loolu man musuma kaa dégg. matt matt yoo kay si buru laa ci xamoon. maa ngi yow a yem de. gis nga nag loolu noonu moom laa wax Modou nangu kaa gëm mu ne la non non non comme loolu la su may sensibiliser am na yooyu yëpp ko xam lan la yow laa ko war a wax. bu ko defee mu tas ñëpp xam ne matt matt yoo day joxe corona. ah waaye Pape sa information bi tamit fan nga ko jëlee lii garaaw na de. waaw mais xibaar la te sax xanaa xamoo ne publier nañ fees Facebook code xanaa xamoo ne lii nii yow da war a jël say matukaay xam ne dëgg ndax boo xoolee si biiru la dalee bu la matt matt yoo jàppee bu matee keneen kooku day am sibiru waaw loolu moom dëgg la moom ku sibiru su ko yow mattee bu la mattee keneen ki nga xam ne dara jotu ko mën na ko wàll mais corona bi kay moom ma jaaxal corona nag noonu la mel gis nga nag li ñu waxee la corona am na yoo su mattee ku am corona su mattee keneen noonu lay demee man nag xam nga lan lay def damay dem kër bii biigee wax ak moom gën ko sensibiliser bu ko defee comme mag moom ñoo doon liggéey si lii ñu continuer liggéey si man information bi bi ma ko gisee ñu publier ko Facebook si laa gàtt gàtt lii dinaa ko ñëpp yëg li nga wax moom Pape dëgg la information xam nga fu nekk lay jóge te li nga wax yenu na maanaa wax dëgg fa yàlla léegi man su ma demee kër ga dinaa jéem a waxtaan ak sama maam xaw ma nag nu ma koy jéem a convaincre ba eh, wax ko eh, eh. sama maam nga xam ne coronavirus rek lay bañ a dégg gis nga nag seen kër xam nga foofu mm. lieu fréquentation la yow nag yaa war a gën a jël say matukaay boo demee nga sensibiliser sa maam sensibiliser seen waa kër bu ko defee foofu ñoom ñu mën a comprendre gis nga kii nii bu dee moom rek du dara boo du mi génne leen ma seeni wax yéen yéen a gëm seen corona ànd leen xeexandoo seen corona. waaw di xoola ba tey baax na Pape man dégg naa li nga wax te dinaa ko jëfee Modou yow mi nga xam ne yow moom jamais nga gëm dara. tey nag xoolal si seen discussion. dawa ji am inspiration bu garaaw a garaaw. fecc bu bees tàkk la ñuy génne. jagleel ko corona. <laughs> yow mii yow nga jagleel corona yow. kon de loolu dina ma bett. xoolal gars yi nañ jàpp temps rek. non nañ ko déglu rek. na jàpp temps ñëwal ñëwal dañ naan eh. ca ca ca cin ca ca ca gin ca gin ca xul. cagin cagin da ñëwal fecc bu bees corona ñëw leen gaañi fecc bu bees corona ñu dem ah caragin caragin cagin cagin cagin ginda cararang cararang cagin cagin cagin ginda eh ne corona yaa ngi lor eh ne corona yaa ngi gaañ corona yaa ngi féewalay corona yaa ngi gaañ ah corona fecc bu bees fecc bu bees ngeen ne corona fecc bu bees fecc bu bees gaañi corona eh ñëwal cararang cararang cararang Gita tak, ta tak, kita, rakir, kin yi bon répétition yi neex na macha allah te et puis ni ñuy ñëwee en masse nii tamit daf ci am solo mais nag am na xibaar bu neex bu ma leen bëggoon jottali que liñ doon ñaan yàlla. yàlla def na ne ànt nag. loolu la. mooy situation bi ñu monsieur le maire waroon jox jox nañu ko. très bien. ah Modou loolu moom neex na de comme monsieur le maire bu defee noonu tamit duñu def lu dul euh, apprécier gestam bi vraiment day mën a jàppale ñun ñi nga xam ne fecckat leen xam nga ñun wax dëgg yàlla amuñu ay moyens bu ñu waxee dëgg ci situation yi la ñuy mën a defaree suñuy yenn bagages yi nga xam ne moom la ñuy joobee monsieur le maire duñu def lu dul di ko jaajëfal comme def na ko dañ koy sant di gërëm man li ma ci xalaat nag mooy matériel yi nga xamante ne jotoon na yàqu ñu jéem ko defaraat xoolaat saal bi daal am naa si waxal bismillah dama bëgg ñu jënd ay garab yooyu baax bëree bëri bu ko defee mu dàq yooyu parce que xanaa xamoon na yooyu ñoom ñooy joxe corona bi. yow Pape yow wér nga. yow yaa ngi xalaat yow yaa ngi dégg sa bopp yow li ngay wax yow dañuy jël suñu xaay naan ay garab yoo lañ koy jënde xoolal ku bëgg garabu yoo nga dem jënd ko sa bopp xaay bi jëndee wuñ ko ay garabu yoo Pape peut-être nag Maodo da nga ko comprendre xanaa kay bu dee dañuy xaaj moitié xaalis bi jënd si garabu yoo maanaam dimbali ñi nga xam ne comme moom li mu wax yóbbi bu màttee ko am Covid su màttee keneen kooku day am Covid bu ko defee ñuy distribuer garabu yooyu si kër yi. très bien Pape dégluwuma leen xamala la. subvention bi subventionné wuñ ko pour ay garabu yoo xam nga pour lan la pour groupe bi la donc nag si groupe bi lay yam tey puissant répétition yi ba suba ak jàmm man maa ngi ñibbi. la santé parce que baaxul day rey doomu aadama. nga faj sa bopp waaye may nañ suñu jàmm waaye. dinañ ko si jënd de ndax comme moom nee na garabu yoo day faj Covid dinañ ko si jënd. ngeen jëndali seen bopp xaar bi du pour loolu voilà. salaamaaleykum. yow góor du lan la. waa maam yow fi ma la bàyyi woon nga tëdd boobu ba tey doo sax doxantu nii si néeg bi. waa yow góor du lan nga bëgg. ma toog fii di def lan. ah maam del doxantu yow tamit sa tànk yi tàlleeku. góor du tee nga ma bàyyi ma toog nii ci kër gi rek. waa defal nii ma taal garabu yoo bi man. waa yow góor du loo xewle ak sa garabu yoo bi yow. gis nga garabu yow bi tey dama cee dégg li nga xam ne bis ni ki tey moom kër gi dama fiy taal garabu yoo mooy sama xarit boobu may feccandool pap moo ñëw tey nee na dañ koo wax ne ko yow bu màttee ku am euh, coronavirus ñëw màttaat keneen mën na ko wàlluloo coronavirus man daal kodd man jaaxal nga ma yow daal saa boo fi ñëwee rek waxi dof nga fi wax loolu ba àddinay sant njaay wala jóob loolu dafee ma sa am ay matti matti yoo loolu xanaa man mi màgget sax xam naa ne matti matti yoo du joxe coronavirus matti matti yoo day joxe si buru wala joxe siburu ma ne matt matt yoo siburu la laa déggoon ne moom lay joxe waaye coronavirus gi ngeen wax matt matt yoo da ko joxe maam nag yow xam nga yow demoo fenn yow fii nga toog bëgg nga may weddi man mii dem di ñëw kay man maa xam loolu matt matt yoo bu maanaam yoo bi bu mattee ki nga xam ne dafa am coronavirus lañ la wax ñëw mattaat la comme yow maam ni nga toogee fii yoo bi matt ku am coronavirus ci mbedd ma ñëw matt la dangay ngay am coronavirus looloo tax nag bis ni ki tey kër gi yëpp laay taal garabu yoo dama ne xaw ma kër gi ngay def yoo xaw ma garabu yoo la xaw ma waaye man de xam naa ne moom sama wet fii may toog doo fi taal garabu yoo xam nga ne man garabu yoo bi daf may fatt maam tamit bala garabu yoo bi di fatt ngay toog si bitim ma taal ko si néeg bi ba mu xër ma koy upp yow maam nag bis ni ki nag man il faut ma jël samay matukaay si yow sa wér gi yaram nag moo ma gën a lépp garabu yoo bi moom dañ koy taal nag maam man moom naka jekk rek ma xam ne sa waaj waajal gii dag maa bëgg a dóor nag kodd waaye boo ma dóoree dinaa yuuxu ba àdduna gépp ñëw yow daal yow rekk daa di may attaqué rek man sa maam laa jox ma cër. maam daal coronavirus la ñuy wax ngay wax waxu respect munoo fexe fexe nag ba duma taal garabu yow bi mu musal ñu ci coronavirus yow maam da war a xam ni yow feebar bi xajul ci yow. yow chaque jour rek ngay bëgg a nekk di indi ay histoire di woo waa koñ bi tey jii moom garab bi dama koy taal maam. papa <laughs> papa. ba ma ko gisee mu fi daa dem lan la la xew. <laughs> papa tey xibaar bu neex laala lay indil. xamoon na ma ne dinaa andi xibaar <laughs> aw ala xibaar. papa seet feebar bi. nee nañu matt matt yoo da koy wàlle maanaam yoo bu mattee am coronavirus. Eh. après dem matt ku ko amul. Eh. da ko koy wàll. soxna waa soxna tey bu ko déggee ay ree daf maa jàpp ba mujj gi dama koo créer fecc bu bees. aw mi. billaay tey salle ci répétition xoolal. Eh. dama doon wax gaa yi jàpp leen ma naan gi ca ree ca gin ca eh. gin ca gin ma naan gaa yi fecc bu bees. Eh. fecc bu bees gaa yi naan corona. fecc bu bees. waaw Modou ça va papa lee ma la. man kay maa la woo maa bëgg a jumbal. papa <laughs> yooyu ba maa tekkee am corona ba maa tekkee ren <laughs> nee na koo daa corona <laughs> dinaa Maodo Maodo foo jëlee tey information boobu. Eh, man këccet mañ leen seen feebar de seen feebar sama yoon nekku ci Pape laa dajeel mu wax ko. contre mën naa ñëw wax ko sama papa comme yéen na ngeen gëm seen feebar boobu génne la ma ci de. Modou xanaa xamoon ne loolu amul Pape moom fi mu jëlee information boobu man mi nga xam ne ma xëy suba ba ngoon nekk si sama téléphone nekk di wax ay information yu ñuy wax ci corona xanaa xamoo waa OMS def nañu étude boobu nee nañ loolu amul matt matt yoo mënu joxe coronavirus matt matt yoo kay ma xam nga fan laa ko xalaat papa man kay ci paludisme waaye palu <laughs> coronavirus ak matt matt yoo Modou soo demee ci Pape nee ko demaat defaat yeneen enquête ndax information bu wérul. boo amee looy wax wax ko sam papa mii moom moo soxla ay information ci corona. ah déet déet moom wax na de nee Omo wax na ka papa du Omo OMS la comme yow Modou yow yaa demoon indi information demaatal ci Pape nga wax ko ni ko information boobu du information bu baax. diisoo ngir aaru di théâtre radiophonique boo xam ne rek li ko tax a jóg moo di euh, fexe ba gindi askan wi euh, ci xibaar yu warul yi ñuy jot saa su nekk jëm ci mbas mi ak lépp lu jëm euh, ci ñàkk yi di fàttali rek mbokk auditeur rajo oxygène ne benn numéro kese la di numéro whatsapp émission bi di 77 ak 424 94 73 du numéro bi nga xamante ne rek mën ngeen cee bàyyi message su ko defee rek ndaw Africa Tech yi woo leen ngeen mën a participer ci émission bi joxe ci seen xalaat waaye itam jokkoo ak ñi nga xamante ne ñoo di comédiens yi te nekk ak ñun ci fii ci biir studio bi suñu ganu tey moo di mati Sarr nekk comédienne nekk bàjjenu gox foofu ca Yaraax mati maa ngi lay nuyu bu baax di wax nga dalal jàmm ci rajo Oxygène waaye itam ci émission bi di diisoo ngir aaru. asalaamaaleykum maa ngi tudd madame Mati Sarr nekk artiste comédienne euh, si troupe compagnie Kaddu Yaraax nekk relais communautaire ba léegi ma nekk bàjjenu gox. maa ngi leen ko doon wax sànq ci ndorteli émission bi. ne leen tey suñu ganu bës bi bàjjenu gox la ñu gën ko xam ci turu Mati Sarr nekk ko comédienne euh, Mati boo ñu doon xamale ak liggéeyu bàjjenu gox ana lan lañ ci mën a jàpp. waaw comme niñ ko xamee rek ci suñu société yi ku nekk xam na ni bàjjan mu ngi commencé ci biir kër yi bàjjan mooy rakku papa wala magu papa comme niñ koy waxee bàjjan dafay taxaw ay doomam taxawu njaboot gi yëpp. fu papa nekkul bàjjan moo fay taxaw mottali yooyu yëpp loolu bàjjanu gox nag ñun suñu liggéey mooy sensibiliser waa ñu xam ne ci sensibilisation bu épidémie amee su amul ñun ñi ngi wër di sensibiliser di veiller surtout ci xale yu ndaw yi doog a juddu bi nga nekkee liir bàjjan bi dinañ la topp sa côté santé say visite yëpp bàjjan yi dinañ ci taxaw bu épidémie amee ñuy sensibiliser te dañuy ñëw ni la yow tànn nañ la pour nga bokk ci bàjjanu gox yi ci koñ bi te bu ñu nee bàjjan rek dafay tënk lu bëri ndax ñun suñu société yi dañu jox bàjjan cër ndax bàjjan mooy ki nekk ci biir kër gi nekk rakk pàppa wala mu nekk magu pàpp bàjjan dara du xew te ñu bàjjan xalaatam te bàjjan tamit mooy kiy aar njaboot gi ci biir kër gi ginnaaw waajuru xale bu góor bi donc ñun dañuy sol mbubu bàjjanu gox dugg ci biir gox bi nag nekk yaay walla ñu nekk mag wala ñu nekk rakk di jubbanti di sensibiliser di wàññi nit ñi di leen teg sur la bonne voie maanaam par exemple bu fekkee dafa am épidémie bu am wala dara lu am ñun dañuy sol suñu yére dugg ci biir koñ di def na kër par kër kër par kër bàjjan dafay nekk nit koo xam ne amul sens interdit fi mu dëkk. warul nekk ku bëre histoire. ku naan tey damay dugg fii suba duma dugg fi parce que bu fekkee da ngay jóg par exemple pour dem di da ngay sensibiliser nga dugg ci kër gi tëb benn kër kër ga nga tëb. mën naa am mbir mi foofu lañ nekk. Bàjjen da ngay teg foofu sa baaraam mu mel ni ñi ngi may xamal ne am na kenn ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum maa ngi lay nuyu soxna si ak nan nga tudd ak fan ngay wootee. man la Daba di baax di bëggoon participer Daba ñu ngi lay fay bu baax a baax kon yaa ngi doon déglu émission bi. waaw maa ko doon déglu depuis Medina. waaw. depuis Medina. waaw. waaw ana lan nga ci xalaat mu mel ni yaa ngi doon dégg kon épisode quinze bi nga xamante ne moom la ñu dawal tey ci diisoo ngir aaru kan nga bëgg a waxal ci émission bi mooy li code wax mooy lan parce que bi ni ko Moodu waxee dëgg la mën na indi corona te dama jàpp ne xel awu na ko tamit ba et puis comme gis nañu corona bi moom mag gën a mun a sonal xam naa maamu moo li muy wax mais li muy wax mun na nekk daal. est-ce que Daba kon du ma la bàyyi ñu joué waatal la pièce bi ba ñu yegg fi nga xamante ne foofu moo la intéressé su ko defee da nga leen di wax stop ñu taxaw su ko defee nga mun a wax ak ki nga xamante ne moom nga bëgg a jokkool euh, ci biir euh, épisode bi ndax noonu dina la gënal. waa léegi après code code laa bëgg a wax. kon ñoom kon doo ngi nii toog dañuy joué waat fi nga xamante ne foofu moo la mm-hmm. intéresé nga ne fan la ci mm-hmm. bi muy wax lan. maanaam fi muy waxee ak maamam. fi muy waxee ak maamam. a gën a xam ne li mu léegi kon bu ñu joué ba yegg si foofu rek. yoo bi mën bi leneen. d'accord bu ñu joué ba yegg si fi nga bëgg rek danga nga naan stop su ko defee ñu taxaw nga daal di mën a wax ak koddu directement. d'accord waaw. acca kon ñu dem. ok asalaamaaleykum maam yow fi nga tëddoon ba tey jugoo fa waa puusal man damay taal garabu yoobi. waa yow moom looy doyee garabu yoobi ay looy doyee garabu yoo yow lan moo xewati. yow maam xanaa xamoo nee nañ. matt matt yoo day joxe coronavirus gis nga yoo bu màttee ku am coronavirus bu ñëwee matt la mun na laa jox korona coronavirus léegi nag ginnaaw loolu kon léegi kër gi yëpp laay taal garabu yoo yow nag maam sa santé moo ma ëppal njëriñ bis ni tey moom fii yëpp garabu yoo laa fiy taal. yow daal man nga ne boo génnee ba ñëw rek di wax waxi dof man garabu yoo ba ma koy dégg xam naa ni garabu yoo moom yoo loo ci ci si buru lañ ko xamee woon waaye du ci coronavirus loolu mooy mooy waxi la maam yow xam nga demoo fenn man may dem man may ñëw lii tey suñu ba. Pape moo ko wax te Pape li mu si wax am nag lu ko leer naññ moo tax daal maam bis ni tey damay taal garabu yoo ci kër gi su ko defee coronavirus du ñëw si kër gi te yow nag maam yow mag nga. allo Daba. ndax dégg nga fi nga xamante ne mooy fi nga bëgg a duggee. wax nga ko du yegg si nañ fa. Daba léegi yow li ma wax sama maam nii. sama maam gis nga ko moom dafa bañ ku ko wax. nee nañ matt matt yoo day joxe coronavirus. ma indi garabu yoo pour taal ko ci kër gi mu ne duma ko fi taal. lu may jàpp naa ni ñu koy wax moo nekk ndax am na fi te na ko jox tamit ku ko am bu mën na ko jox ku ko amul ah, man de man daba man li ngay wax ni man dara def ma cee leerul ndax man àdduna ba muy baax mësuma dégg ni naa moom man kañ xamoon naa ci ne moom matt màtt yoo si burul loolu kañ ba ba ba ba kii di Njaay ah ak Diop loolu koy xamoon nañ ko ca suñuy ca suñuy yaay ak yaayaan. waaye maam ba a léegi nag am na. daba bàyyi loolu. corona moom ah man de xanaa ma laajaat bu baax de waaye corona moom du du du du faj garabu yoo xaw ma yoo xaw ma garabu yoo ni ngeen koy waxee. jërëjëf jërëjëf maam jërëjëf Daba Daba est-ce que yaakaar nga ni li nga xam ne mooy message bi nga bëggoon jàllale. Euh, ak koddu ndax yaakaar nga ne jàll na li nga bëggoon def am nga ko. voilà waaw émission am na solo neex na nit ñi war nañ ko. am na waaw. pour jërëjëf jërëjëf kon ñu lay jaajëfee bu baax a baax mën ngeen wëy ni daba def composé li nga xamante ne moo di vingt 77 424 94 73 envoyé seen message WhatsApp su ko defee ndaw Africa ca ki mën leen a woo ngeen mën a participer ci émission bi di fàttali rek nag ne émission bi li ko tax a jóg moo di fexe ba daal di déconstruire lépp lu jëm ci xibaar boo xamante ne warul rek te ñu koy dégg mu jëm ci mbas mi ak vaccin bi kon ba Badiane Maty mu mel ni yaa ngi koy euh, dégg mu mel ni bi mbas mi taxawee ba tey ñi ngi gis liggéey bu am solo bi ngeen di def di wàcce ci askan wi di waxtaan ak ñoom ndax léeg-léeg di ngeen taseeg ñenn ñoo xam ne dañu mel ni Modou jàpp ne mbas mi amul. waaw koddu dinañ dajeek ñu mel noonu mais bi ñu ci gën a neex mooy benn jour dem nañu di sensibiliser benn nit mu ne ñu man gëw ma ni corona am na mais gis nga yàlla ak ay mbiram ndaw si dafa wàllu doomam wàllu jëkkëram toute une famille mooy jamono yi nga xam ne bu ñu ñëwee dañuy quarantaine kër gi ñu quarantaine këram tëj këram ba jànqam bi dëkkoon ci kër gi jour ba mu demee ci marché bi di ndugg ba mu nee salaamaaleykum marché ba ñëpp daw mu mel ni guerre moo fa am ndax ñàkk gëm gi mu ñàkkoon gëm ni covid 19 amul du tere nag ñuy bay suñu waar di waxtaan ak ñoom ndax ñu loolu moo ñu war sensibiliser moo ñu war du ñu sonn du ñu tàyyi te mooy comme ni ma la ko waxee rek kër par kër chaque jour yaa ngi dugg ci nit ñi di wax ba léegi am na ñu bañ ba léegi am na ñu bañ ni corona amul mais ñun du ñu teree ñu def suñu liggéey en tant que bàjjenu gox di waxtaan ak ñoom ñu ngi sensibiliser ñu ngi def test ñoom it ñu ngi gis ñu ngi gis gis ñi corona di jàpp gis ñi corona di rey dina am yenn ci ay euh, xibaar yoo xam ne di ngeen koy jot yéen en tant que bàjjenu gox xëy na wax nga ko sànq am na lu am solo lu jotoon am maanaam formation bi ñu leen defal balaa ngeen di tàmbali liggéey bi ndax léeg-léeg ngeen jànkonteel ak ci askan wi ñoo xam ne dañu bëgg ngeen laaj leen ay message yoo xamante ne yéen seen xam-xam màccul jëm ci ata naka ngeen leen di euh, satisfaire. waa kon du xam nga ñun duñu ay agent médical. ñun bokkuñu kër docteur. ñun nit ñu waxee corona bi ni koy moytoo kese. ñun loolu la ñu mën a sensibiliser nit ñi ci loolu ñu moytu ak jumtukaay yi rek waaw ñu respecter les mesures barrières ñun suñu sensibilisation surtout ci loolu lañ koy jëmale ndax man mii toog toll naa période boo xam ni dama defarloo ay masque parce que tamit en tant que bàjjenu gox mais en tant que personne ressource ci sama quartier xam nga li may wax ndax invité naa la fa benn set setal loolu yëpp ci aarum corona bi la bokk en tant que personne ressource dem confectionner samay masque di ko may samay dëkkandoo xam nga loolu yëpp ba tey ci xeex corona bi la bokk ba tey jii may waxtaan ak yow nii rek réunion bu ma dem sama paa sama waxtaan bu ma ko ubbee rek ci mbirum corona bi laay démarrer donc ñun du ñu wàcc tant corona wàccuñu rek ñun du ñu wàcc sensibiliser. Mm. mais nag toujours am na fu ñuy yem ndax mooy comme ni ma la ko waxee rek ñun du ñu ay médecin bokkuñu ci corps médical. donc suñu sensibilisation tamit am na fu mu yem. am na fu mu yem waaye daal liñ ci mën a jàpp mooy lu am solo la ñu ngi may xamal ni am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ bi naka nga tudd ak fan ngay wootee. ñoo tur bi naka la naka nga tudd. Serigne Ndiaye. Serigne kon ñu lay jaajëfi bu baax a baax ci dugg bi nga duggoo ci émission bi ñu ngi leen koy wax sànq mu mel ni yaa ngi doon déglu émission bi di épisode 15 bi ana fan nga bëgg a duggee. waaw yàlla dafa def nag épisode bi am na lu ma si xawul rek mais jot naa dabe bi. ci fan nga toll. waaw toll naa daal fi ñuy waxee ak suñu maam di ko xamal ne matu matu yoo daal mën naa joxe corona. kon dañuy bàyyi ñi nga xamante ne ñoo di comédiens yi nekk ak man ci studio bi ñu joué la waaye nag ngir fàttali la na bu ñu joué ba fi nga xamante ne moo la intéressé da nga naan stop. su ko defee ñu taxaw nag nga daal di wax ak nga xamante ne moom nga bëgg a jokkool ndax mën naa nekk. incha allah jërëjëf sëriñ salaamaaleykum waa maam waa yow ko fan nga nekkoon ba nëga ni si maam nag damaa demoon répétition waa yow maam bi ma la bàyyee nga tëdd fii ba tey jugoo fi ah lan nga bëgg ma def waa garabu yoo ah, kodd yow fan nga jëmeeg sa garabu yoo bi yow maam pap daal xamoo pap te ñu bokk fu ñuy répété pap moo ñëw nee na gis nga lii di matt mat yoo day joxe coronavirus maanaam yow bu màttee ku am coronavirus bu la màttee yow da am coronavirus looloo tax nag bis ni ki tey maam kër gi yëpp dama fee fas yéene taal garabu yow. yow daal koddu mën nga ne boo génnee ba dikkaat ci kër gi rek waxi dof rek nga fi wax loolu fan nga ko mës a déggee yow ba jamono di sant Njaay ak Jóob ba léegi ndax danga mës a dégg ku coronavirus yow di ko joxe man kañ yoo ah si buru laa ko xamee woon koddu yow maam yow moom xam nga yow demoo fenn maam man maay dem man maay ñëw te yow li ma la wax nii kay dafa leer nee naa la. waaw foofu daa mel ni baax na sax. foofu baax na dëgg naa danga naan stop principe bi mooy nga ne stop boo ne stop rek ñu daal di taxaw parce que tant que waxoo ko rek dañuy wëy. stop kon nga bëgg a waxal ci ñoom. waaw suñ maam rek lañ bëggoon waxal. kon maam a ngi noonu. maami kon kon maam euh, Serigne. li mu wax li mu wax dëgg la nee na ba jamono daal. matt matt yow si sibiru lañ ko xamee. ah waaw man de loolu laa xamoon nag. waaw mais nag xam nga feebar yu ndaw ndawaan yi. mooy dem ba sonal suñu système immunitaire bi. te suñu système immunitaire bi demee ba sonn rek. daanaka feebar yu bëri bu ñëw rek muy corona ak bu mën si doon rek day am doole pour gañe la. ah man de li nga wax nii dégg naa ko. waaye man de xam naa ne moom ah. yoo moom amul doole doole ga nga xamante ne war naa mën a gañe coronavirus. yow moom mais mën na laa jox sibiru te sibiru moom fu mu la dalee rek daanaka feebar bu ñëwaat mën na laa dal. ah man de loolu laa xamoon. ba àddunay sant yaay ba léegi. yoo moom ci sibiru laa ko xamee woon. waaw mooy mel ni lu oyof rek si ngelaw lu ñëw da lay da ngay neex a yóbbu. te suñu sët ñun sët yi moom comme que ñun ñooy dem di ñëw. yéen da ngeen di toog si kër yi ñun ñooy dem di ñëw di indi. waaw allo Serigne. waaw yow mu mel ni kon da nga jàpp ne nangu nga ne matt matt yow mën naa indi mbas mi ndax loolu da nga da nga kaa gëm. waaw waaw nangu naa ko bu baax a baax moom. léegi fan nga teg lu mel noonu. waaw parce que dama jàpp ne moom feebar feebar la rek. doomu aadama boo xesee feebar rek mooy lott nga sa bopp. maanaam xaw ngaa faible nit nag boo faiblee feebar bu ndaw bu mu mënti doon bu ñëwaatee rek daa mel ne dalay dugg. dégg nañ la sëriñ waaye nag loolu daal li ci doon am solo mooy ñu dégg ci ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm a ci li ni mel en tout cas ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax nag nag mën nañu woy di déglu émission bi di participer itam euh, en passant par numéro bi nga xamante ne moo di 77 424 94 73 ngir envoyer message yu WhatsApp mu mel ni ñu ngi may xamal ne am na keneen ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum allo allo oui soxna si maa ngi lay nuyu ça va Codé yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. ana naka nga tudd ak noo tudd ak fan ngay wootee. tudd laa tudd maa ngi wootee xurunaar. xurunaar ngay wootee. Euh, Sophie mu mel ni kon yaa ngi doon déglu épisode 15 bi euh, di diisoo ngir aaru ana lan nga ci jàpp. ah émission bi daanaka daf maa a waaw mu mel ni tey li ñu li ñuy waxtaanee mooy mbas mi ak matt matt yoo ndax matt matt yoo mën naa wàll nit ki nga xamante ne moo di mbas mi jàpp nga ni loolu mën naa nekk. bien dañuy bàyyi kon ñi nga xamante ne ñoo joué pièce bi di comédien yi bu ñu yegsee mhm. di fi nga xamante ne mooy foofu nga daal di ne stop ba waxee stop ñu daal di euh, taxaw nga mën a waxtaan ana kan nga bëgg a waxal directement. Moodu laa bëgg a waxal. Moodu ci boppam. Ah, kon acca kon dañuy joué waat pièce bi bu ñu joué ba fi nga xamante ne mooy fi la intéressé rek da ngay wax stop boo waxee stop rek mu taxaw nga daal di mën a jokkoo ak Modou directement. pop. naka mu gën. wala bu jàmm. daa mel da ngay génn nii de foo jëm nii. waaw waaye saa yi dama am nouvelle bu bees quoi parce que dama war a dem sensibiliser ji nii parce que wax nañ ne. corona matu matu yow daf koy joxe. cey booy yéen booy yéen yéen a ngi seen feebar ba léegi mais loolu amul. mais doo xalaatee ko de yow. su la maatee yow mi am corona su maatee keneen kooku day am corona léegi nag il faut nga dem sensibiliser nit ñi quoi. booy xoolal coronavirus sax existé wul mais booy man man matt matt yoo moom fi ma doon déggee sibiru la mën a joxe mais mënul joxe ay corona quoi. mais loolu bu amee ñun ñëpp dee nañu kon xanaa. non dañu comprendre gis nga matt matt yoo day joxe corona maanaam su mattee ku am corona su la mattee yow mi amul corona daf koy wàll maanaam. allo Sophie ndax yaa ngi dégg. waaw maa mën nañu arrêté foofu. mais Sophie waaw mën naa ñaareel ngi noonu mën ngaa jokkoo ak moom. Modou matt matt yow dafay joxe coronavirus. day joxe corona kañ Modou. yow da ngaa a gis ku mu joxe coronavirus. yow tey jii boo corona yow. waaw yoo matt la ñoo matt ma. waaw te yow bu lay matt lan lay Modou sa doole. mais man xanaa man mii nga xamante ni gaw ma ne coronavirus am na sax man gaw ma loolu noonu. man moo a mi di wax a yow. waaw damaa gaw ma woon corona bi. mais man dafa ma dal ñaari ngay wax. yow coronavirus ak doole bi mu àndal virus bi ni mu ni mu liñ ci wax ni mu mel. après yow mën koo gàddu di ko jox keneen loolu moom mënuma ko gëm. allo Sophie ah mënoo ko gëm naa ko moom. waaw jërëjëf jërëjëf man moom ma sax euh, dèjà am na jërëjëf Modou jërëjëf Sophie kon dangay ngay garder ligne bi rek am na keneen kuñ may wax ne mi ngi dugg si ngir mu mën a participer daal di gën a leeral li nga xamante ne dafa mel ni leerul sa bopp bu baax waaye jàppal na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci dugg bi nga xamante ne dugg nga ko ci émission bi jërëjëf allo salaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi lay nuyu sëñ bi naka nga tudd ak fan ngay wootee Maodo Ablaye Ndiaye di wootee fan. maa ngi wootee fii si Pikine buntu Pikine maa ngi déglu émission bi. mu nekk lu am solo ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa leen di gërëm kooku tudd Kodou laa bëggoon a waxal. Kodou ana fan nga bëgg a waxee ak moom mu mel ni yaa ngi doon déglu ndax mën nga ñu wax fi nga xam ne moo la intéressé ci pièce bi su ko defee ñu daal di la ko joué waatal. non fi Kodou ñëwee ci maamam di ko wax ne euh, léegi dafa war a di ko kon dañuy dem waaye bu ñuy joué ba yegg fi nga xam ne moo la intéressé danga naan stop ñu daal di taxaw nga mën a wax ak code directement ndax tànk waxoo stop rek duñu mën a waaw jërëjëf jërëjëf kon acca nañu dem salaamaaleykum waaye yow maam yow fu ma la bàyyi woon nga tëdd sànq ba tey maam yow jugoo sax doxantu waaye waa yow code du fan nga jógee yow koddu ci bëccëg ba tey gisuma la lan nga nekkoon koddu maam damaa demoon répétition hmm. maam daal sama xarit boobu noonu pap moom daal tey moo ñëw saal maam nee na matt matt yoo day joxe coronavirus nee na daal gis nga yow bu mattee ku am coronavirus bu ñëwee matt la comme yow ni ngay toogee fii rek demoo fen yow mën ngaa am coronavirus. maam nag looloo kon dañ lay bàyyi nga wax ak code directement. allo code. waaw Ablaye. waaw yow déggee ne loolu dafay joxe coronavirus. ki ko fan la ko jëlee. yow man ki ki ma ko wax. kooku dafa amoon coronavirus ba pare sax moom tamit Pape moomu xaritu ki nga xam ni daa nekk ci koñ bi comme relais communautaire xaritam la te Pape da cee am information bu leer maanaam matt matt yoo mën na joxe coronavirus Pape moom du waxantu. olof olof Ndiaye nee na. ba pare ba pare ba pare ba pare nee na publier nañ ko ci Facebook am gis na ko ci. te envoyé nañ ko ko tamit message. matumaatu yoo dafay joxe coronavirus xalaatoon àdduna bi kenn dootu fi des. waaw mais moom whatsapp lañ ko ko envoyé tamit audio te nee na na ko. su fekkoon ne loolu lu leer la xanaa kon da ngay dégg docteur yi ñu wax ci wala nga dégg ko feneen waaye bi bi kii Facebook wala xam nga ne foofu wax bu am solo du génn foofu. ah ma moom docteur yi wax ko. waaw su fekkee ñoom waxuñu ko kay am na yi nga xamante ne boo ko déggee. war ngaa xam ne yow sa jëm bopp loolu yéen wul maanaa jërëjëf Ablaye mu mel ni ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax fi nga duggee am na solo donc li am solo mooy ñaareel ñuy déglu ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci li ni mel euh, Ablaye ndax mën naa xam ndax li nga bëggoon euh, def nga ko maanaam ko ak ko du directement objectif bi nga ci visé woon ndax atteindre nga ko. waaw vraiment parce que loolu daf ma naqari woon ma toog fii di déglu sama lii mooy tax nit ñi di gëm li nga xamante amul loo moo tax mën naa dugg wax ak moom jërëjëf. jërëjëf ñi lay jaajëfal bu baax a baax lii rek la lii mooy li ñu tax a jóg déconstruire lépp loo xamante ne xibaar bu warul la jëm ci mbas mi ak li nga xamante ne moo di ñàkku yi kon na ngeen def ni ñooñu def ni ab Ablaye def ni Sophie Serigne ak Daba maanaam bind seen message ci 77 424 94 73 ngir mën a bokk ci émission bi nga xamante ne euh, diisoo ngir aaru di épisode 15 bi ñu ànd ci ak euh, Africa Check waaye itam. ci ki nga xamante ne moo di jàppandalu e, ki nga xamante ne moo di Google News Initiative ngir daal di xam amle lii ni mel mu mel ni Euh, yëf yaa ngi wéy ba tey dañuy jokkoowaat ak nga xamante ne mooy kii suñu ganu kër gi toog fii muy Maty Sarr Adja Maty bàjjenu gox mu mel ni kon yaa ngi dégg waxtaan wi boobu ba tey ndax mën nañu xam yenn ci yenn ci ay jafe-jafe waa ngi koy wax sànq léeg-léeg ngeen wàcc ci marché bi dugg ci biir kër yi niñ leen di accueillir ndax mën nga ci dellu siwaat ci tuuti. waa xam nga ñëpp yemuñu donte ku nekk yaa ngi dugg ci sa biir quartier ñi ngay dem di leen sensibiliser yaa ngi ñoo ma dëkk yéenay daje ci dëj yi yéenay daje ci ngénte yi yéenay daje ci tuur yi yéenay nekk tout le temps mais du du à chaque fois ñëpp ñoo gëm ni Covid bi existé na. toujours donc dañuy am problème ak ñooñu nga xam ni dañu mel ni kenn ci artistes yi ki di wax ni gëmul ni Covid bi mi ngi am donc tout le temps du à chaque fois boo demee. ngay am accueil bu baax parce que ki nga xam ni gëm na ni Covid bi am na soo ñëwee dina la déglu dina la accueillir mais ki nga xam ni gëmul ni Covid bi am na du la accueillir te Covid bi mi ngi fii jógu fi. mu nekk lu am solo kon di ay xibaar yoo xamante ne donc ñu ngi ciy waxtaan ak ki nga xamante ne moo di Maty Sarr nekk bàjjenu gox nekk ci yaraax mu nekk ci bàjjenu gox donc ci gox boobu di dugg ci askan wi di waxtaan ak ñoom di leen xamal ne donc lii nga xamante ne moo di mbas mi eh, lu am la waaye daal nañu ko waxtaanee waaye itam lépp lu am solo luñ ci mën a jàpp rek mooy nañuy déglu ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci ndax lu wër lay doon. di fàttali rek ne euh, question euh, bi nga xamante ne mooy laaju semaine bi mooy rek ana lan la ñu war a wax ñi nga xamante ne dañu jàpp ne euh, li nga xamante ne moo di matt matt yow mën naa joxe mbas mi donc loolu mooy laaju semaine bi ngeen mën cee tontu ci réseaux sociaux yi waaye itam bàyyi seen commentaire lu ñuy soxal doon ndax émission bi naam mi ngi jàll actuellement en direct la radio Oxygène di la 103.4 waaye itam mën nañ ko suivre ci Zeno même bu weeso seen xibaar daf ñuy am solo seen euh, wax ci nga xamante ne mën ngeen ko bàyyi ngir tontu ci laaju euh, bés bi di fàttali rek nekk diisoo ngir aaru moom la ñuy déglu tey ji euh, di quinzième épisode bi ñu koy amal fii ci rajo Oxygène ànd ci ak suñuy comédien yu seen xam-xam màcc bu baax jëm ci li ni mel di sensibiliser ndax gis nañ ne bi mbas mi ñëwee ba léegi dafa ànd ak ay xibaar yoo xamante ne benn waru ci mu dem sax bu bëgg di metre en danger ñu bëri donc ci askan wi kon Badiane loo xamante ne mën nga ko digtal askan wi te ñu mën koo jëriñoo jëm ci sensibilisation boobu ana lan lay doon. waa Kodou di wax euh, population bi rek ñu respecter les mesures barrières te képp nag koo xam ni jotagoo vaccin nga dem vacciné wu ji parce que tamit baax na dina la aar ci lu bëri. Sénégal nañu gëm ni Covid bi mu ngi fii jógu fi ñun nag ñi ngi def suñu warugar ñi ngi xeex ñi ngi sensibiliser ñi ngi def lépp mais defe naa chaque jour kuy déglu les informations lu ministère de la santé di joxe Covid bi mu ngi fii bougé wul bu ñu bëggee nag mucc ñu aaru comme ni ngeen koy waxee rek diisoo ngir aaru nañu dem jëli vaccin yi baax na ci torop te respecter les mesures barrières. mu nekk lu am solo ñu lay jaajëfe bu baax a baax yow Maty Sarr nga nekk uh, comédienne waaye itam nekk bàjjenu gox uh, ca yaraax di dimbali askan wi ngir ñu gën a mun a am xibaar yu jëm ci naka lañuy def ba mun a moytu li nga xamante ne moo di mbas mi waaye itam di leen ñaax ngir ñu gaal di dem uh, jël seeni ñàkk ndax kat lu am solo la di fàttali rek ne yéen a ngi ci seen émission diisoo ngir aaru épisode 15 bi tey yemoo ko altine fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2022 comme ni muy amee rek altine bu jot ci juróom benn waxtu ci ngoon jotee jàpp juróom ñaari waxtu ci ngoon te ngeen di mën a am rediffusion bi dimanche bu jot ci bu fukki waxtu ak benn jotee ci suba jàpp midi ngeen mën a am donc rediffusion bi di fàttali itam ne ci partie technique bi yéen a ci am Daouda Ba ak Emmanuel Mendy ñu gën ko xam ci turu DJ Las lépp ci jàppandalu Fallou soow nekk ci réalisation mel ni ñu may xamal ne am na keneen ku nekk ci ligne bi maa ngi lay nuyu soxna si naka nga tudd. Fatou Dieng. fan ngay wootee. maa ngi wootee Yaraax. Yaraax kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci dugg bi nga xam ne dugg nga ko ngir participer ci émission bi mu mel ni yaa ngi doon déglu kon épisode 15 bi. waaw déglu naa ko bu baax. thème bi kon nekk matt matt yoo ak mbas mi ndax matt matt yoo mën naa wàll nit mbas mi lan nga ci jàppee. waaw ci côté boobu damay ànd ak euh, ki nga xamante ne mooy rakku Modou lu mu ko wax. mooy que ne mathématique yoo mënul joxe li nga xamante ne mooy mbas mi. ndax mën nañu joué waatal kon pièce bi bu ñu demee ba yegg fi nga xam ne foofu mooy fi nga bëgg a duggee ana sax kan nga bëgg a waxal ci biir émission bi. xanaa ma ak Modou rek pour xamal ne loolu mënul nekk. kon mën nañu joué waat waaye bu ñu yeggee fi nga xamante ne mooy fi nga bëgg a duggee wax ak Modou danga naan stop loolu mooy principe bi. boo waxee stop rek ñu daal di taxaw nga mun a jokkoo directement ak Modou ndax mu ngi nii ak man ci biir studio bi ndax mën naa nekk. d'accord incha allah. kon aja ñu papa. ñëwati de. papa tey. non papa tey pap moo ñëw saal nee na. yoo bi bu la màttee. maanaam yoo bi maanaam bu màttee ku am coronavirus. après mu ñëw màtt la yow mi nga xam ne feebaroo dara jotu la dala koy wàll. <laughs> non papa. ma ay reedi. ah. mata mata bi yo. waaw u ne ne ba màttee ka am corona. ba màttee ka leen ko dafa am corona. waaw. lo loolu la wax. waa Modou. stop stop waaw mu mel ah, waa Modou. waaw nee nañu matt yoo day joxe coronavirus. déedéet Modou ki la wax loolu. Ah. xanaa xamul ne. matt matt yoo. si biir la mën a joxe maanaam dañuy wax paludisme loolu lañ ñu parce que boo xoolee ba si li nga xamante ne mooy lañ ñu wax ne mooy joxe coronavirus boo xoolee doo si gis lu jëm ci wàllu matt yoo. donc ki la wax loolu ne ko mu dem saytuwaat ko bu baax kii information balaa nga koy wax danga koy saytu eh, coronavirus nekk na la nga xamante ne mani waaw pap mi ma ko wax dafa corona woon ba wér beneen si des moom day yëngu ci wàllum sensibilisation moom nee na da ko jot ci TikTok nee na gis na ko Facebook ba pare envoyé nañ ko audio bu leer naññ que ne ki ko ko wax am na ci ay information yu leer mais réseaux sociaux du nekkul ne lépp luñ fa wax rek loolu information bu baax la des fois ñu joxe des informations fausses de ce fait daa war a dem si ñi nga xamante ne ñooy médecin yi wala ñi si yëngatu comme ñi relais communautaire yi ñoo la ci mën a wax lu leer naa ñu mais Matou Mate yoo joxe coronavirus. te xoolal man mi di déglu information chaque jour ci affaire coronavirus damaa liir keroog benn communiqué waa OMS wax ne matt matt yooyu du joxe coronavirus xam nga lan lay joxe paludisme. bien sûr exactement loolu la mën. comme moom moom du dégg. moom pap xaritam la na dem joxaat ko information boobu bala mu koy tas ci koñ bi xam ne information boobu information boobu. Fatou côté boobu maanaam nga dem wax ko pap. balaa information bi di tas. ma ne gis naa kii du docteur rakaam wax na que ne waa omo sax wax na ka moom moo dëgër boppa du omo OMS ah, waaw dama daa xam ne dama jàngul nag. ma ne jërëjëf Fatou euh, ñu lay ñu lay jaajëfal bu baax a baax ndax mën naa xam jokkoo bi nga xam ne jokkoo nga ko ak Modou directement ndax tax na nga euh, li nga bëggoon nga am ko. waaw juste pour xamal ka woon nekk ne loolu mënul nekk. te mu bàyyi ci xel balaa muy joxewaat beneen information boo xamante ne leeru ko. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. loolu la ñu bëgg tax diisoo ngir aaru jóg mooy gën a leeral askan wi indi xibaar yu baax jëm ci mbas mi ak lu jëm ci ñàkk yi ñu gis ne boobu ba tey saa su nekk ñu jot ay message ci réseaux sociaux yi muy whatsapp muy facebook wala sax muy tiktok ay xibaar yoo xamante ne du ay xibaar yu wër te wóor te moo xam ne mu mun a faat ay bakkan yu bëri bàjjen mati bàjjenu gox nekk comédienne nekk ci yaraax di yëngatu ci troupe bi kaddu yaraax tey nga nekk ci émission bi nekk ci studio di gis ndaw yi nga xamante ne xëy na am na lu ñu jàngee ci sa formation waaye itam nga déglu askan wi nga xamante ne ñooy participer ci émission bi ñii di wax ne matt matt yoo mën naa indi li nga xamante ne moo di mbas mi ñii ne déedéet matt matt yoo kat ci sibiru lañ koo xam tey boo doon dolli wàccuwaat sur le terrain di jokkoo ak woowule askan fan nga yaakaar ne fa nga mën a accès donc sa message. waaw sama message dinaa ko accès surtout ci matt matt yoo bii nit parce que c'est des fausses informations donc nit ñi nañu moytu. parce que comme ni ko auditrice bi waxee sànq rek. du information bu ñu def ci réseaux sociaux bi rek c'est vrai ñuy moytu réseaux sociaux yi parce que des fois dinañ fa jëlee de fausses information parce que matt-matt yoo buy joxe sibbiru sax du yoo bu la matt rek nga am sibbiru xam nañ ni c'est la piqûre de l'anophèle moom mooy joxe sibbiru donc ñu moytu parce defe naa ni. corona dis gi muy diis xajul sax ci yoo ba yoo ba di ko mën a jël di ko wàllaat nit ki mu nekk lu am solo bàjjen ñu lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal sa taxawaay rafet na waaye itam taxawaay képp kuy bàjjenu gox tey jii mooy wàcc ci terrain bi waxtaan ak askan wi ñu gën a xam ne li nga xamante ne moo di mbas mi ax akay mi ngi fi waaye naka la ñuy def ngir moytu ko nañu déglu en tout cas li nga xamante ne moo di message di jóge ci ci seen xam-xam màcc jëm ci donc kër docteur waaye itam fi nga xamante ne source yu fiable yi maanaam xibaar yu wër yi te wër leer fa lay jógee ndax lu am solo lay doon ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow bi nga xamante ne yaa di bàjjenu gox teewoon fi tey ji en tant que comédienne waaye en itam en tant que bàjjenu gox ñu rafetlu bu baax a baax ana lan nga ñuy tàggoo. waaw di leen sant di leen gërëm rek di wax ni kontaan naa ci émission bi. te artistes yi bu ñu ko yemale rek ci sketch yi nañu continuer ñoom tamit di véhiculer message bi parce que am na ci solo torop parce que ñu ngi def le théâtre forum du ñëpp ñoo comprendre le théâtre forum am na ko mën a dégg tey li ngeen joué mën na dem yóbbu ni matt matt yoo dina joxe feebar dina joxe Covid déet donc ñoom tamit nañu continuer la sensibilisation ci mbedd mi ci sal de répétition yi et un peu partout comme ñun ni ñu koy defee ñun lee bàjjanu gox parce que corona bi mu ngi fii ñu respecter les mesures barrières dem ñaqu ji ngir mën a aar suñu bopp aar suñu njaboot ci jàngoro ji. ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow Adja Maty Sarr nekk bàjjenu gox waaye itam nekk comédienne teewoon fi tey jii ngir indi sa xalaat jëm ci euh, lii di mbas mi waaye itam jëm ci euh, ñàkk yi ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax waaye itam di jaajëfal ñi nga xamante ne di équipe bi nga xam ne ñoo fi teew tey jii euh, jouel ñu li nga xamante ne moo di épisode bi di jaajëfal ki nga xamante ne moo di Fallou Sow di technicien réalisateur diisoo ngir aaru di jaajëfal itam ñi nga xamante ñoo di technicien yi di Daouda Ba Emmanuel Mendy ñu gën ko xam ci turu di Las waaye itam ki nga xamante ne moo di kumba Sila nekk coordonnatrice bi di jaajëfal ki nga xamante ne moo di Mamadou Diol wante damay jox rek ñi nga xamante ne ñoo di euh, comédien ci seen bopp ñu daal di présenté wu bu baax a baax ndax nag ñi ngi rafetlu liggéey bu am solo bi nga xamante ne ñi ngi koy def. salaamaaleykum man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye nekk euh, Modou ci pièce de bi nekk acteur principal kontaan bu baax a baax leen jaajëfal. salaamaaleykum man maa ngi tudd Khady Fall. nekk mère Fanta nekkaat tamit maamu Koddu. salaamaaleykum man la Mamadou Diol maa nekk euh, ci théâtre bi maa lu Cheikh. salaamaaleykum man la Baye Ndiaye maa ngi tudd Mame Mbodj Gueye waaw man la yaa wax Baye Ndiaye jaraa boota waay jaraa boot. salaamaaleykum maa ngi tudd Yacine Diop. Euh, maa nekk kodd ci théâtre bi nekk en plus Binta. salaamaaleykum maa ngi tudd sëy na Seynabou Diop maa nekk soxna ci pièce de théâtre bi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ne mayoon nga ñu noppo ci émission bi rawatina ñi nga xamante ne ñoo dugg ci euh, émission bi participer mu di euh, Daba woote fële ca Medina ki nga xamante ne moo di Serigne Ndiaye woote fii ci Pikine naka noonu Sophie Touré woote ci Xurunaar Abdoulaye Ndiaye woote buntu Pikine waaye itam euh, faati Dieng ñu leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen fàttali ne ci présentation bi yéen a ngi ci amoon soxna Kodulum ci rajo Oxygène 103.4 di leen jox dig daje bii di ñëw pour épisode 16 bi bu ko kenn fàtte benn numéro rek la di 77 424 94 73 ngir ma di dugg ci émission bi joxe seen xalaat bu leen fàtte itam laaju ba si mun ngeen yeggali tontu bi ci fi nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi bàyyi seen commentaire ñu leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf